ba ci affaire immigration yi gis nga li ci li ñu ci tëral ci wàllu philosophie kenn xamul ñaata siècle la fii ma li bi zawraay que émigré woon ñu jàpp ko mu ni lu may defati ci dëkk bi kooku yitte la فيما الإقامة بالزوراء لا سكني فيها ولا ناقتي فيها wala jamani loolu rek mooy li ci nekk bari na ku jóg te fekk boo dee wuti teraanga ngay wuti waaye dafa fekk nga war a toppandoo sa sécurité nag loolu it farata la ci waaye loolu waa ji wax nee na lu may def ci dëkk bi xaw ma fi tuwaa bu ma dugal gan aw ma fi gëléem gu jigéen gu ma ratt suba naan meew aw ma fi gëléem gu góor gu ma war doxi ba soxla lu may defati ci dëkk bi qiimal iqaamatu bi zawraay laa sakani fiiha wala naaqati fiiha wala jawal kooku ci la ñu tërale base émigration waaye booba amul risque ba ba amul risque tabarkal la yal na yàlla taxawu ñëpp tabarkal la ñi ci loru itam rek yàlla def aljanna mooy seen rawuwaay dafa mel ni rek lu triste la waaye itam doo xam lu tax yàlla def ko moom rek xikmaam moo mën a àtte loolu yàlla xam na ko lanu yàlla boole taxaw te yàlla musal njaboot yi te ubbi leen buntu xéewal